man professeur Mary Teuw Niane maa ngi laaj réewu Sénégal ci élection 25 février professeur Mary Teuw Niane déclaré na candidature ci élection présidentielle yi ñu dëtmal ki nga xam ne moo di njiit mouvement pour la transformation nationale. bokk na ci ñi nga xam ne am nañu yenn jiite réewum Sénégal. duñu politicien dañu am suñu poste ba pare di liggéeyal Sénégal mënoon nañu dem feneen wante dañu gëm ni. ñun ñi nekk sénégalais nekk suñu réew ñun ñoo gën a war a mun liggéey ngir suñu réew jëm kanam. ci boobule déclaration de candidature ki fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk njàng mu kawe mi wax na yéene bi mu am ngir tabax réew mi. dañu bugg defar ko ci juróomi at yi. fexe ba ku yeewu Sénégal ngay mag ngay naw nga mun a bind mun a liir. fexe tamit ba ndox ak courant ku nekk mun ci am. jëm mu nekk lu yomb ku nekk nga mun a faju te kenn du la laaj xaalis bala ñu lay faj. njiitalu mouvement pour la transformation national feddali war na engagement am ngir soppi dindinu Sénégalais yi. ñu fexe tamit ba ku nekk yow sa njaboot ñu jàppale la ba nga am foo fàttu ndax waratul am fenn ci Sénégal foo xam ni añ sax dalay jafe. loolu wax nañu ko régler parce que dañu koy régler ci mbéy mi ci càmm gi ci napp gi ak ci aquaculture bi. Mary Teuw comme ni mu koy faral di waxee. mooy candidat bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy dëgg xarañteef ak itam xam-xam. moom nag bëgg na askan bi yëpp booloo def benn say ngir ñu mën a tabax réewum Sénégal.